bisimila mbokk internet ci Wally Balago Seck ma ngay diir mbag baay ba Thione Balago Seck te naan ko léegi danga xewwi te maa la dàq woy soo ma weddee nañu jàkkaarloo ñu woy ñu ñaar daañ xam ku mën tontub Wally Balago Seck bi yéexul terenewul ginnaaw si nga xamante ne baayam ba di Thione Balago Seck mu ngi doon ñaxtu di wax aka wane ñàkk àndam ci li tax kiile di Wally Balago Seck bokkul ci projet CEDEAO bi nga xamante ne ci la ne Wally Golden Boy de ba teg ca dig daje ay fansam ci ay kàddoom moom Faramareen bu mag bi di Wally Ballago Seck mi ngi wax naan maa ngi nuyu sama baay bi nga xamante ne nii defetul buzz nekkatul ci actualité ba tax may profito ci bile occasion ngir euh, jox dig daje sama fans yépp alxonas gi ñu dégmal ci ab gu nar a dox ci sama diggante ci ab diyo nar a ci sama diggante ak moom Papa Thione ci chaîne bi di Ballago TV lii la Wally Ballago Seck dal di xamle laata muy joxe lay wi nga xamante moom moo projet CEDEAO bi ko bàyyam bëggoon a boole Wally di kaañoo bàyyi ba naan ko soo gisee bokkuma ci projet CEDEAO bi xam naa ne su ma ànd ak yow wëy di nga wàññi suma baat ci woy wi mbaa nga sabote ma loolu mel ni ku ko naan na xam nga ne maa la dàq woy ba tax Wally Balago sekk ne Papa na daañu wëy nag jàkkaarloo man ak yow ngir ñëpp xam kan moo mën ci mag yow Olof Njaay daal nee na mag du caaxaan borom bi jaw du foo te doole xale xajul ci mag waaye bu kenn fàtte ne Olof Njaay moom moo wax ba tey màggetu jinne goo gis dese na ngeleju gu jommal jinne ju ndaw waaw këy doom jaa mën wala baay ja warante xuuxaam tekki tubéy Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal